mooy ay musiba ak balaa yuy wàcc ci doomu aadama yi ci réew mi ak ci feneen yàlla nañ ci suñ borom musal ci barke weer bii nga xamante ne bii mooy weeru rajab di weer xam ne weeru Cheikh Mahamadul Fadal la sëriñ baa ngi fàttali itam jëwin yi nga xamante ne bii ay njiiti daayira lañ te daan jël seen ab liggéey di ko jaarale ci moom ngir liggéeyub sëriñ Touba te nga xam ni ñoo ko defoon ci seeni coobare sëriñ baa ngi leen di wax ne képp koo xamante ni bii ci jëwrin yooyu da nga daan ñëw di jëbbali sa liggéey sëriñ bi mi ngi wax ni nañ bàyyi ba jëmmi jamono ñu doog a dajalowaat mbooloo yi dikk di jébbale ndax jamono laajul loolu jamono bi ñu toll jëwriñ yooyu nag ñu fàttali leen ni kenn ku nekk mën ngaa jël ña nga xamante ni bi ñoom ñoo jiite mooy ñaar ñi nga xam ne ñoo jiite ni ko Serigne Mountakha Mbacké waxe ñu dikk jébbale seen liggéey ñu defal leen ko ci liggéeyu Serigne Touba bi ba ca topp itam mooy Serigne baa ngi fàttali ñi nga xam ni maanaam ñoom ñoo doxale digganteem ak moom ak Serigne Touba muy sas yi nga xamante ni bii dañ koy def te daaw Serigne Abou Mbacke moom Cheikh Mouhamadul faadal ak njabootu Serigne Fallou gépp jébbale lu tolloog 313 millions mooy ñetti téeméeri millions ak fukk ak ñett Serigne baa ngi fàttale waat sas yooyu ni lu ñu defoon daaw mboolem taalibe yi lu ci waay defoon daaw rek na nga ko gën a yokk ba ñu am ci lu kawe njot ndax liggéeyub Serigne Touba moom du deltu ginnaaw mu ca kanam rek la jëm te ku bëgg yokk nag liggéeyal Serigne Touba moom doo ci am guddi doo ci am bëccëg Serigne baa ngi leen di fàttali sas yooyu. kon nag ñi ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal adduna bi yëpp sëriñ bi mi ngi leen di wax ni leen kenn ku nekk foo nekk rek nanga fas yéene di jàng alxuraan di jàng xasida bu dul ci weer wi itam nañ continuer di def loolu ndax sëriñ Tuubaa moom loolu rek ci la nekkoon kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm